إخوة الإيمان السلام عليkum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi ñu ngi doore suñu kàddu ci turu borom bi subhanahu wa taala di làqatu ci moom di muslu ci moom di ko ñaan mu tënkal ñu iblis mi nga xam ni mooy yàqkatu jëf yi di ñaan ni nga xamni non lañu ko yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ci ne wër wi bu yexé muy shahru ramadan al mubarak yonent bi daf ñu jangal ne bu yexé dañuy tijji buntu al yi tej buntu safara yi jeng iblis ba julit ñi nga xamni ay goru yalla lañ du len manal dara ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu ci gorom yooyu nga xam ni ibliis du leen mënal dara ci weer wi ak ginnaaw weer wi maanaam tënkal ñu ko sunu giiru dund ba du yàq li nga xam ni moom mooy sunu ay jëf xam ngeen ni ëllëg yowmal qiyaama ñi fa am safaan ñépp iblis dafa participer ci bi ñuy dund ci seeni jëf motax ñu yàqule ba nek ci safan kon ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu tënkal ñu iblis ba du man dara waye nak il faut ñu sabablu il faut ñu def effort effort ñun itam ba xatal ko ci lepp lo xamni ñu koy def mu nek ay ibadat ba duñu ko mëna yaqal sante borom bi subhanahu wa ta'ala delloo ko njukkal li nga xam ni moom rekk moo ko yeyoo njukkal li nga xam ni saa yoo xëyee war nga bàyyi xel sa diggante ak sa boroom ci sant ko wax alhamdulillah ci làmmañ mu sax ci xol waaye cër yi di ko jëfee nga di ko jëflante ak nit ñi alhamdulillah baat la boo xam ni làmmañ a koy tudd ci xol lay commencé waaye dañ koy jëfe alhamdulillah ki am mooy dimbali ki amul alhamdulillah ki man mooy jàppale ki manul alhamdulillah ki nga xam ni yàlla am na lum ko dénk as tuut mooy mu bokk ko ak ñi nga xam ne ñoom la ko war a bokkal waaye alhamdulillah jullit mooy mu xam naka lay toogee ci pénc mii di àdduna jëf li nga xam ni moom la ko boroomam sant daw li nga xam ni moom la ko tere kon alhamdulillah ñi ngi delo yalla njukkal mu defal ñu ay taranga yo xamne buñ ko doon lim duñ ko mëna jéxal ndax wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha buñ doon lim xéewal yi nga xamne defal nañu ko duñ ko mëna jéxal ñu tok fi ñepp ku ñimee tok rek di wañi ne ba ma juddo ba tay ak defal yalla nee jaru ko sax ndax xamulo naka la toll yow lila war sama ak yow moy jaamu sellal jaamu gi te nag di ma delloo njukkal ma di la dolli ndax la in shakartum la azidannakum yàlla nee na boo ma santee ma dolli la yokkal la say point ëllëg yowmal xiyaam gaaw a diisal sa sa balance buñ koy peese waaye tam nga am yokkute àdduna kon alhamdulilah itam buñ ko di fàtte moo tax ki nga xam ni kenn du moom sallallahu alayhi wa sallam jàngale jàngale bu rëy boobu ne nit ki saa yoo xëyee li war a njëkk a génn sa gémmiñ boo yeewoo mooy alhamdulillahi lazi radda alayya ruuxi wa aafaani yàlla jërëjëf yow mi nga xam ne dama tëdd samay moroom tëdd te ci tëdd boobu am na koo xam ni àllaaxira la yeewoo comme may nga ma chance su dund kon maa ngi lay delloo li nga xam ne moom mooy njukkal kon may nañu chance tam ñu fekke waat weeru koor ñëwaat tam ci barab bi nga xam ni yàgg nañ fi ñëw toog jàkkaarloo ak yéen kon dañuy wax alhamdulillahi ala kulli xaal alhamdulillahi xatta tarda julli sëlmal ñaanal suñu sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu sang boobu nga xam ne itam li ñu doon moo ñu ko def moo tax ñu civilisé moo tax ñu xam naka la ñuy toogee ci penc mii di àdduna xam suñu boroom ba duñ ko booleeg lenn xam suñu boroom ba duñu ko booleeg dara xam suñu boroom ba gëm ko moom kese rekk kott donc di ko jaamu moom kese yonent bi moo ñu ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu ko yàlla fayal noonu la ñuy ñaanalee gaa ñu baax ñi nga xam ni dañu àndoon ak moom sonn fi mu daan sonne muy soxaaba yi ak soxaabiyaat yi nekkoon ay góor ak ay jigéen ay mag ak ay ndaw lu nekk ñu defoon ko ci diine defoon nañ ci seen alal defoon ci seen temps defoon ci seen doole mais defoon ci li gën a cher ñoom muy nangoo joxe seen bakkan ñooñu ay mag lañu woon ak ay ndaw nekkoon ay jeunes comme ni ngeen nekkee ay jeunes nekkoon ay jigéen comme ni ngeen nekkee ay jigéen waaye lépp ñu defoon ko ci diine ngir bëgg rek ñaari kàddu féete kaw lu dul ñoom te muy laa ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñom itam ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu sëmbaxtal yow yi ci seen kaw dina loolu mbokk yi ñi ngi leen di nuyu nuyu islam muy jamm yalla ak yermandem ak barkem yalla nako yalla wacce ci aduna bi yeb wacce ko ci rew yi nga xamni ñi ngi dekkando ak ñom waye defal ñuko fi senegal yalla am jamm am jamm bi gëna neex moy am salamatu sadri moy xol bi nga xamni fa lañu ñu jamm nga dugal fa borom bi subhanahu wa ta'ala ak suñu sang bi ak gaañu baax ñi waaye di dund li nga xam ni moom mooy jàmm waaye te fexe nit ñépp itam am jàmm jooju bu ko defee suñu réew mën a nekk loo xam ni dafay jag ñaanal waa AMS ci taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw même bu dul koor des fois ñu yëg seeni activité yal yàlla jàppale leen defal leen tawféex yàlla dimbale leen ni ko sama doomu bàyyi ñaanee ki fi togon sànq tam wax ko tam bok ci operation mursay jeur sama dom bobu yalla saxal ñu ci li nga xamni mom moy ngeum dundal ñu ci tam mu dekkil ñu fekk ñi ngi fess del ak li nga xamni mom moy ngeum kon yeen tam yalla na leen ko yalla defal ñi ngi leen di yéegal seen yéeguwaay nuy waa opération Mbuur mursay Mbuur Say Jër di wax rek ñom ñun yag nañ nek di théorie mais ñom dañu ñew rek pratiquer mu nek lu am solo ñun dañ doon wax rek jigéen day muuru yàlla nee na yonent bi nee na mais ñëw ñëw ñëw ñoom dañoo ñoo def acte bi dem fekki la ba pare muur la defe naa loolu ay yiw gën a ko rëy kon yàlla na yàlla jàppale leen Fatima ñu ngi lay nuyu Fall ñu lay ziar di nuyu ki nga xam ni fu may dem mu ànd ak man yor sama sécurité Souleymane ñu ngi yéegal sa yéeguwaay Fama jànq ñu ngi lay ziar ma fekk fi sama papa tey tey jotaay bi dafa gën a neex ndax sama papa ngi ni toog Ndongo Fall sama papa maa ngi koy ziar bu baax a baax moom itam imaam ñu ngi lay delloo njukkal Malick moom day sonn ci lii lool ndax tey am na nu mu doon demee xëy na keneen moo fi doon ñëw ndax xëy na yéex nañ ko yëkk mais daf ñoo xoj ba fii awa woon nañu bi ma ko gàntalee gis naa ni désolé na ci portable bi mais mun ma wax dara xam naa daf ma rus mais imaam nag xoj ma dama il faut di nga ko taxawee alhamdulilah rek la ñuy wax tomb waxtaan bi ñuy waxtaanee mooy xaqiqatul xayaa man da dama xamul fan ngeen jëlee tem bi kan moo ko tànn wala ñan ñoo ko tànn d'actualité boo xam ni chaque jour war nañ di ko waxtaane xaqiqatul sama benn soppetam démb rek la ma woo laaj di nuyu man ko dama am conférence tey ku del mu ñëw Doudou mi ngi fii toog jóge ba wakaam moom tam ñu koy nuyu bu baax di ko ziyaar xaqiqatul xayaa le vrai sens di dund non, la maanaam dund gi ban sens la am ban xar kanam la lay won est-ce que lim lay won loolu la est-ce que lim lay gëmloo loolu la ah ñu bokk rek ànd xool jàngat bi ba xam ndax àdduna ni nga koy gisee noonu la est-ce que ni muy déroulé jàpp nga ni noonu la est-ce que lim lay won faset yi mu lay won itam jàpp nga ni loolu la pour tënkal la ko ci lu gàtt àdduna benn mag la màgget bu màgget ba kumur xubidaas mais dañ ko maquillage defal ko may up make-up la defal ko may up ba nga xam ni soo ko xoolee dangay def ni xale bu ndaw la mais fekk na bu sëlmoo rek nga gis xar kanamam dëkk lan mooy àdduna ñu soog a dugg suñu tomb waxtaan benn bindkat dafa wax ni yab na aadam innama anta ayyaamu kullama zahaba yawmuk zahaba baaduk yow doomu aadama ay bés nga yoo xam ne àdduna bi ngay dund ay heure nga fi am temps nga fi am waxtu nga fi am danga fi am benn saa boo xam ne bu jotee dangay dem bàyyi fi lépp loo xam ne fi nga ko fekkoon kon yow sa jëmm ji yow muy dund en tant que nit yow dangaa nekk ci àdduna fekk si àdduna àdduna moomu nga ciy dund bi ngay ñëw fi nga ko fekk sooy dem danga ko fiy bàyyi moom ay bés la yow ay bés nga te bés bu romb rek yow sa bos wàññeeku na na la leer ni yaa ngi dëgmal ci beneen dund boo xam ne mi ngi ñëw ndax dund yamul rek ci àdduna borom bi subhaanahu wa taala lim ñu jàngal mooy tabaaraka allazi bi yadihil mulk wa huwa kulli shay'in qadir allazi xalaqa al mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yàlla dee sax la njëkk bind soog a bind li nga xam ni moom mooy dund kon ñaari dund moo am te ñaari dund yooyu dee sax dañuy wax est-ce que am na buñ nee dee am na dinañ di Zeynab lan lay wax ni intixaal moo am tuxu maanaam jëmm ji tuxu dellu ci fi nga xam ni mooy cosaanam muy suuf ruu i tamit déplacé wu dellu fi mu nekkoon ndax ruux ma nga jóge ci alamul arwaax muy ci kaw moo tax may wax est-ce que dee am na intixaal moo am tuxu dee gi booy sukuraat danga koy yëg buñ lay jagat jagatee di yóbbu yaa ngi koy yëg buñ la suulee ñi la suul buñ doxee trois pas delloo nañ la sa ruux munkar ak nakiir dinañ ñëw audité la laaj la imal na awit naar kon lan mooy dee kon lan mooy de puce bi nekk ci sa yaram maanaam jëmmu doomu aadama ak ruux dafa mel ni puce ak portable puce bi soo ko génnee ci portable bi portable bi amatul njëriñ mooy jëmm ji moo tax fii xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra yàlla nee na ci suuf laa leen bindee bu ngeen faatoo dañ leen ciy delloo te ëllëg yomal xiyam ci lañ leen di dekki leen ngeen jug taxaw jàkkaarloo ak man moo tax summa amaatahu fa aqbara moo tax nit bu faatoo li ñuy njëkk a def gaawantu gaawee leen ko moom sax day yàkkamti ku ko gaaw denc ndax xam na ni lu nekk dafa war a dellu palaasam ruux itam dellu ci kaw ruu bi gorewul rek moo dul dem ci kaw ruubi bi bi gorewul nga xamne ne bi mu ci yaram bobu da faté ni bis mi ngi ñëw ñom ñaar dinañ takaliko mom lañu la yéegal yàlla tëjal ko li nga xamne moy buntu asaman ba du mëna a yéeg yàlla nañ yàlla muccal ci wax yoy bu ko défé nenañ da fay del ci bammel bi fekk fa ki nga xamne moy mooy yàlla buñ bok ci ñooñu kon aduna non la mel yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu aduna gàtt gi nga xamne daf ko gàtt waye surtout ci xeetam xam ngeen jamono bu njëkk ba dañ daan gis ñu daan dund ay at yu baree bari mais yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam amaaru ummati ma bayna sittina ila sabina wa aqalluhum man yatajaawazu zalik nee na sama xeet seen at 60 ans la ñuy am wala 70 ans mu ne lu tuuti ci ñoom ñooy romb am ay 100 ans nga dégg ñu ne kii am na 120 ans très rarement nga koy dégg surtout jamono bii nga xam ne nag ci lañu ñu toll léegi gaaw nga xam ne moom migini ngi mu nek lu doy war motax adunya saa fahmilha toa aduna bi ay heure nga fi def kon rik way heure yoy nang ko passer ci top borom bi subhanahu wa taala pour nak dug ci tomb waxtan bi buñ delo ci alquran borom bi subhanahu wa taala daf ñu jangal ben aya bo xamne wala ay ayat yo xam mo lay wax rek li ñi waxtane moom mooy lan muy haqiqatul xayaa léegi damay bàyyi awa jàngal ma aaya bi ñu jëm koo tas firi suñu kéemtulaay xam-xam fi mu toll pour ñépp ñu mën a xam xar kanamu àdduna moom mooy lan awa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور واعبد قاعدة بني دف بدي قاعدة دمي تحب جاكا tey xale yi ndaw lañuy doon ngay jàng alxuraan di parten di di di di mel ni koy dox te nga judd ci ñu yar la ci borom bi subhanahu wa nee na xam leen i'lamu mu ne àdduna mooy wax ak yéen borom bi subhanahu wa mooy wax ak yéen mu ne xam leen ni dunduk àdduna gi ay fola fo saxul moo tax saxul day romb mu mufassiruun yi dañuy wax ni baatu laib bi yàlla tudd fii mooy fowuk yaram fowuk yaram koo xam ni day fo yaramam sport ci la bokk fecc ci la bokk def bépp activité boo xam ni bokkul ak li la yàlla sant physiquement mu ne àdduna loolu daf cee am laib lahu boroom xam-xam yi dañuy wax ni mooy fogoo xam ni ci xol lay nekk xol bi nit koo xam ne dafa bëgg caaxaan ci xolam musique moo koy dundal nit koo xam ne li koy dundal mooy ay caaxaan moom moo koy dundal nit koo xam ni li koy dundal mooy lépp loo xam ni iblis daf caa woote maa ngi nuyu sama taaw nday bint sembel ñu ngi lay ziar bu baax a baax lépp loo xam ni dafay xëcc nit yóbbu ko ci ay mboosóor bi gën a foor ndax laayib dañuy wax ne xale moo koy def imaam imaam ñu ngi leen ziar bu baax a baax imaam Ndiaye Pape Medoune ñu ngi leen di ziar dañuy wax ni laayib folo boo xam ne xale moo koy def lahwu ñu ne fola boo xam ni mag moo koy def xale bu ndaw lan lay fowe bu njëkk ba lu luñ xamoon ñun biñ ciy toll dañ doon jël ay cin di toggantu kii naan man maa aye tey te dañ ciy am jëkkërkat ci fo bi kii naan kii mooy papa ji kii naan kii mooy yaay ji ñuy fawantoo ay togg ak ay yàq tey nag fo boobu amatul tey xale yi fawum portable la ñuy fo tey portable mooy objet bi nga xam ni mooy yaayu xale yi di seen bàjjen di seen tànta ñu ndayale ko seen bopp ñuy bàyyale ko seen bopp ñuy nijaayale ko seen bopp moom la ñuy fawee mais lu mën a am mooy laaj mooy fo bi nga xam ni moo gën a tuuti nga xam ni ki koy def nekkagul koo xam ne dafa am maturité ba xam li muy def ak li mu warul def mais lëxu nag ki ràññee xam xam bu baax a baax li nga xam ni loolu la ko yàlla digal mu lànk na yàlla defuma ko lii laay def kooku moom la ñuy tuddee mooy ki nga xam ne mooy def lëxu nga xam ne xolam mooy bëgg lépp lu bon xolam mooy bugg jaxasoo ak jigéen xolom moo koy yóbbu wa boobu moo koy yóbbu ci sàcc moo koy yóbbu ci njaaloo moo koy yóbbu ci wax loo xam ne gëmu ko moo deflo ay actes yo xamni da fay nek contre nature ndax nit sa yu defé li nga xamni borom bi subhanahu wa taala sant ko ko mooy dafa def contre nature ndax nit li tax yàlla créé ko indi ko fi ci aduna du dara du dul ibada wa maa xalaqtul jinna wal ins illa li présence doomu adam ci kaw suuf du dara yàlla bindul nit pour muy fo afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turjaun yàlla nee na bu leen yaakaar ni dama leen indi ci àdduna pour ngeen topp caaxaan yi toppi pomi topp li nga xam ne mooy mbumbaay bi yaakaar ni du ngeen delsi ci man kon li tax ma indi leen fii ci kaw suuf mooy jaamu yàlla kon yàlla bu utiliser jàngal la tudd ñaari baat baatu laib ak baatu laahu ne la maa ngi lay xamal ni àdduna daa mën a fàbbi nit yóbbu ko ci am po bi ngay nekk ndaw boobu mën naa bañ a garaaw mais yóbbu la nag boo ko toppee ci nag dem ba nga xam ne dangay nekk mag topp li nga xam ne nag moom mooy iblis mu di la dévier di la sànq nga dem ba nga xam ne sa yaram dafay allergie lu bon dafay allergie kon lu baax lu bon nag ci la lay xëcc loolu mooy baatu laxaw mu ne nag ak taar taar bi pas taar yi nga xam ni dañ koy sol nii de taar taar lu ba tey dafay delluwaat ci li nga xam ni moom mooy xol muy bëgg lu ligg lool ba mu tere laa jaamu yàlla am na koo xam ni dërëm bi muy dàq moo tax waxtu julli bu jotee mënta julli am na koo xam ni liggéey bi muy liggéey jaral na ko lu ne lu ne mais day fàttani borom bi subhanahu wa taala moo ko kàttanal pour mu mën a liggéey am na koo xam ni la mu ne di ca yëngatu lu dul moom loolu la gën a favoriser ko lépp moo tax bu yàlla wootee mun na koo bañ a wuyu mais bu seytaane wootee mu dem wuy ji ko mooy na boobu mooy taar bi mu lay won te nekkul xam nga dañ lay wax ni euh, àdduna li tax mu doy waar mooy lu olof di tuddee ñu ñulux naaj bu tàngee ngay dox ci tali bu la soree lool day mel ni da ngay gis ndox mu taa dangay mel ni sa bët yi ndox lay gis ndox bu taa looy dem ci tali bi doo fa fekk ndox de àdduna noonu la mel daf lay dig la dul jox di la won noo xam ne melul noonu moo tax mu ne yéen nit ñi xam leen ni àdduna mii daa bari ay facettes àdduna mi dafa doy waar àdduna dafa yéeme daa bëri ay taar yoo xam ne daf lay fàbb bi yóbbu la ci lu bon taar bi lay yóbbu ci lu baax dara nekku ci ndax inna laaha jamilun yuhibbul jamaala mu ne wa tafaaxur tafaaxur mooy tiitër tiitëru sama alal ji sama kont yi sama doom yi sama nàngam bi sama sama boobu nga xamne tay ñu bari ci nit ñi mom lañuy utiliser def ko li nga xamne mom moy arme diko xexé nit ñi amna ko xamne alalam lay xexé alalam lay xexé ba mëna a yàqal nit signé ben signature bo xamne dina ger ka ko koy defal da koy jox xaliss ba mëna a yàqal kooku à vie ndax daf ko ger mom motax alal motax borom bi subhanahu wa taala ne aduna dal ñi nga xam daf leena a fàbbi ñu nekk ci te xamuñu seen rôle deug mooy ñi nga xam ne ñu ngi dugg ci caaxaan ak i fo nekk ci di ëppalante li nga xam ne moom mooy alal ak ay doom mu ne nag te soo xoolee loolu dafa éphémère yàggul xoolal jamono bi ngay dund bi ngay nekk xale jékki-jékki bu fekkee xale bu jigéen nga ñu naan njànq si njànq si njagamaar bi nga jékki-jékki di dégg jànq bi yàggul dara nga dégg jeeg bi du yàgg nga dégg yaay ji du yàgg nga dégg maam ji étape yooyu dara yàggu ci moo tax borom bi subhanahu wa taala nim ñu ko tegtalee mu ne mu ngi mel ni misaalu nawet jot yàlla taw mu taw ñi ji ji mu daal di sax verte ngay xool ni mu verte du yàgg dara rek mu commencé daal di jaune du yàgg dara rek ñu daal di koy góob mu dem ba nga xam ni la nga jiwoon muy ay bant yu tooy dañoo dem ba wow bañ mun koo def li nga xam ni moom mooy matt mu ne étape boobu ni mu gaawee xool leen nawet bi du 3 mois lay am bu guddee ba gudd dee fois 4 mois te ñun Dakar sax bariwul lu muy egg ay 4 mois xanaa ci yeneen région yi ñu ne ana nawet bi ñëw na dem na yàlla nee na àdduna noonu la mel ak a gaaw te moo tax mu ne ñi nga xam ne nag lii ma tudd nii li ma njëkk a tudd alal ji doom yi tiitaru bi tiitaru moom bokkul ci jullit tiitaru fii wóorul Abubakar radiyallahu anhu daf doon wax ne bu yomal xiyaamee bu tegee tànku ndeyjooram ci aljanna càmmoñ bi bala mu kaa fekk si day sikki sàkk est-ce que dina dugg aljana wala déet saxaaba boo xam ni xaritu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci fukk yi nga xam ne dañ leen a bégale woon aljanna mais ñun gis nga tey dañoo naagu boo saraxee sax rëyal ko boo fanaanee def xiyaam sax ngandal ko dama fanaanee julli boo dimbalee nit sax réyal ko def ko sa xol ah man jàppale naa nit mais xolal ak ñoom liñ def ci diine yépp dañuy wax est ce que yowmal xiyaam ñoom dinañ dugg aljana et pourtant wax nañ leen ni dañuy dugg aljana kon ñoom duñu naagu ndax xam nga ku naagu daagu te ku daagu rek ñu romb la moo tax borom bi subhaanahu wa taala yi mu njëkk a tudd aayul lenn ci ñoom am alal aayul am ay doom aayul bëgg lu baax aayul mais li aay mooy mu fàtte loola borom bi subhaanahu wa taala ndax àdduna yàlla dafee indi nit ba pare nag am yu mu ko jox wala tansa nasibaka min ad-dunya waxsin kama ahsana allahu ilayk àdduna danga fee am cër danga koy doxal ba mu mat moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne àdduna pour nga mun koo dund day dangay am équilibre mu ne dangay nekk di jaamu yàlla ba yaakaar ne malakul mawti mi ngi ñëw ci yow comme moom ni mu ko daan waxee di wax naan naka lay bànneexoo te malaaka bi yàlla jox bufta bi mi ngi ko sex di xaar yalla nu ko ba mu ëf ko kon naka lay banexo yonent bi lolou don wax sallallahu alayhi wa sallam don wax ni man jamono bi yalla yoni ak yowmal khiyam pour mu ñew ka xaa tey ni daal di tàllal ñaari baramam ni ñu jegeyoo nee la jegeyoo lolou lim ñu jangal ni moy ñun ñoy nek mu mu juk jamono mom motax tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ni xétu mu juk jamono ñoy mujj ci aduna yàlla taxañ suuf si ak asamaan si ku nekk mu rek la da delloo la li nga xam ne loolu nga defoon moo tax mu ne ñi nga xam ni nag ëllëg yowmal xiyaama buñ ñëwee dañuy am li nga xam ne mooy magfira yàlla def leen di jéggal mooy ñi nekkoon ci àdduna yàlla may leen jox leen yi nga xam ne ay objet la ñu ciy dund ndax nga xam ne munta ñàkk mais defuñu ko woon loo xam ne màddala mu leen ñu leen di jaamu ba fàtte borom bi subhanahu wa taala mais ñi nga xam ne ëllëg yomal xiyaam ñoom ñooy am problème mooy ñi nga xam ne bi nekkee ci àdduna doom dafa taxoon mënul jaamu yàlla alal tax mënul jaamu yàlla allazi jamaa maalahu wa addada yaxsabu anna maalahu axlada mooy ki jàpp ni alal ji moom moo ko jox pouvoir lu nekk mun na koo def ak alalam daf fii sax te du yàgg rek ñu wàccee ko lal bi génnee ko kër gi génnee ko néeg bi yóbbu ko ma wuyu ji borom bi subhaanahu wa taala alhaakumu takaasur xataa zurtumul maqaabir moo tax borom bi ne subhanahu wa taala am na ci nit ñoo xam ne aka ñoo ñàkk xel utum dërëm daf leen a jaral lu ne ca la ñuy nekk subaa ngoon guddeeg bëccëg ngar ngar ngar ba dee fekk leen ñu dem wuy ji dem tëdd ci bàmmeel ya yàlla nañ ci yàlla muccal fi yàlla jeexalee aaya bi mooy àdduna wa ma xayaatu dunia illa mataaul xuruur nee na pour nga xam yow nit sa présence ci àdduna pour nga xam nan nga war a jàppee àdduna mooy àdduna lum la jox doo ko saxoo te yàgg-yàgg da saxe àdduna dund la boo xam ne aka mën a naxe aka mën a njuuyee dañuy wax ni àdduna njuuy la sant njuuy mooy lim lay gëmloo nekkul lim lay dig du la ko jox dangay nekk xale di am ay ambition su ma màggee lii laay def lee laay def lee ñi yàlla dimbali sax mun nañoo def loolu mais am na koo xam ni la nekk ci xolam mu koy bëgg di ko mébét munu koo dab du ko dab mukk ci àdduna te tey ki la gën a mën a denc ay milliards mi ngi la soxla yeneen gën na laa soxla yeneen yoo xam ne daf ko ciy denc te du ko dab ba koroog muy faatu moo tax àdduna dalay lay gëm loo xam ne nekkul àdduna dalay lay dig loo xam ne du la ko jox wa ma xayaatu dunya illa mataaul xuruur dund la boo xam ne daf lay wor dund la boo xam ne daf lay nax léeg-léeg mu gëm loo la nga gis koo xam ne dafay wax ne su ma demee ba tol nangam bu ma demee ba am nangam at laay kii ne man su ma demee ba am at yi laay dem màkka kii ne man su demee ba at yi laay def nàngam loolu mu lay gëmloo est-ce que di nga fa yegg wala déet bindkat ba nee na bëri na ay jeunes yu yaakaar seen gudd fan fekk ràbb nañ seen càngaay ba teg ko ci marché bi di ko jaay du yàgg ñu ne boppa doon métti biira doon métti dafa accidenté deux roues ci la accidenté xale yu góor yi moytu leen deux roues Sénégal tali yi moo baaxul Europe ñoom xëy na foofu dina fa valable mais fii tali yi baaxul te ñu bëri mënuñoo dawal ñu bëri mënuñu dawal sama genre bi da ngay am permis maîtriser woko commencé dawal am kula jitu jiitu yore deux nga dam dal ci kawam mu wuy ji boromam beur na ño xamni ñak nañ seen bakkan ay jeune yo xamni ñi ngi doon yaakar seen guddu fan ta fekk na ndaysan rab nañ seen càngaay ba teg ci marché bi motax aduna ak di borom bi subhanahu wa taala mi ko bind mom moko xam motax mu ne wa tilkal ayyamu nu daawiluha bayna naas mu ne jappal ni gis nga aduna bu jàpp ni yow rek la ak li nga am yow rek yaa ko am li nga am tey suba mën nga ko ñàkk mu nekk ci loxoy keneen moo tax ñiy xëccoo nguur lekk-lekk ak a ñuy ñàkk xel toog ci nguur ba jàpp ni dootoo fi jóge lu la neex nga def te boo fi jógee yow la nga defoon nit ñi la nga leen lebal loolu lañ lay fay kon boo toogee doo rafetal amal ma shi'ta kama tudinu tudaanu defal lu la neex mais loolu lépp la loolu lañ lay fay kon àdduna ak a doy waar demal nga fekk mag mag mu am téeméeri at nga laaj ko lan mooy àdduna dina la wax ci aduna lo xamni ndax mag du yàlla mais dafa yag ak yàlla dina la xamal ci aduna lo xamni yow ndaw xamuloko mu nek ay dig-dig yo xamni ne daf la koy dig ta fek na ndaysan da ngay son rek mais do ci jot kon aduna il faut nit def ci ndànk motax luqman bi mi yedd dom ja bokku na ci lim ko wax wala tamshi fil ard marahan inna allah la yuhibbu kull muxtaalin faqur waqsid fi mashik waghdut min sawtik inna ankara al aswat la sawtul hamir xam nga lu mu ko doon jàngal foofu àdduna defal ndànk doole ji nga am ba tax ngay cëfër cëfër yi toll ci nekk jeune nekk ndaw joxoo borom bi subhanahu wa taala li mu soxla ci yow nga yaakaar ne bu asamaan si deewal di nga ko téye yaakaar ne booy dox di nga mën a xar suuf si yaakaar ni yow rek la fu xale bu jigéen rafet bu rafet nekk nga yaakaar ne pour yow la yaakaar ni doole daal lu muy jaay rek sa doole mun na koo jënd mun a defal ndànk de àdduna demewul noonu de doole ji benn marxala bu la yàlla jox boo xoolee mag mi yore yat da nga koy xool ne pourtant na jeune de maam commencé commencé isolé commencé mam kenn dool buy wax sax duñ ko dégg ah sama maam dafa naax jàppal ni na ndaw comme yow lay yàlla jox ci doole daf la ko abal daf koy jël lim la jox ci alal daf la ko abal daf koy jël bakkan bi sax daf la ko abal te bu ko daf koy jël wa illa mataaul xuruur dundula la lum la jox doo ko saxoo mais yàgg-yàgg yow da ngay saxe loolu moom il faut nit xam ko moo tax mu jàngal ñu ci beneen aaya jàngal ñu àdduna ay falaaki caaxaan waaye nag dund bay wéy moom moo ko gën aw jëlal dund bi nga xam ne moom mooy ñëw te sax moo gën dund bii ñuy dund téeméeri junni yoon dina leer ci biir waxtaan bi incha allah يلا واحد نيجان غامير يلا وهم لفنورو بول اك بنين واخ موتاخ ومن حياه الدنيا اي يو نيت خمال ني لابس دا تان بي غي دوند في في ادنا بي برنا اي تيا خان لول الا امام ادا اداتو استثناء لا استثناء مانام يالا داف كوي جيفانديكو تي اي بات واخ لا نلا dund gi li fi nekk nga koy jëfe nga koy soxla di ko utiliser wasiila la waaye du raaya wasiila la xam ni ñu koy waxee ci français ay francisante laa jàkkaarloo ak ay francisant mais man arabisante laa wasiila la waaye du raaya imam après nga firi leen ko waa benn moyen la boo xam ne danga koy utilise yow mais nekkul ni loolu moo tax yow yàlla bind la yow wamal xayaatu dunia illa laibun wa woon àdduna daal ci ñi nga xam ne dégguñu ko forag lay nekk ci ñoom ak ay caaxaan nga dégg xale bi di wax naan toll ci def ko aayul toll ci def ko rek a aay toll ci def ko ak ay aay toll ci def toll ci ndaw am xel am vision am doole nekk ci lu ñaaw ak a boobu baaxul yàlla buggul boobu romb ko bàyyi ko romb ko bàyyi ko nag boobu moom moo aay ndax jamono bi la yàlla di soxla ci lim la soxlaa nga bees tàq mu soxla la àdduna tàllal la loxo yàlla tàllal la loxo sa diine soxla la ndax diine ji gémb ay ndaw ñoom ñoo ko ŋànkoon ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga wan ko ginnaaw dem ba romb ko nag moo tax tey jàkk yu bëri ña fa nekk nañ ñu baal ay papa yu retraité nga xam ni dañoo toppoon seen ndaw dem ba màgget dem ba retraité àdduna soxlaatu leen ñu ne nañ dem ci jàkka yi moo tax ñoo fay nekk di xëccoo nodd di xëccoo jiite nodd yoo xam ne bu ñu noddoo nga bëgg a daw nodd koy dafay woo nit ah fajar des fois nga dégg jàkk yoo xam ne allah bi rek buñ ko yëkkatee yow da ngay bëgg a daw du loolu la ñu jàng maîtriser wuñ ko woon ndax bi ñuy nekk ndaw nekkuñu woon ci loolu te nag yàlla dafa maanu maanu goo xam ne bi ngay nekk ndaw li nga ko jox soo màggee loolu la lay delloo bi ngay nekk ndaw li nga ko jox soo màggee loolu la lay delloo ndax bi day wax ni ku jël ndawam jox ko li nga xam ne mooy borom bi subhanahu wa taala boo nekkee mag yàlla téel la sag mag àddunaa ngi noonu àdduna bari ay facette démb fi nga nekkoon nekk benn gentleman ne yow rek la fu ne nga dugg fa topp nekk koo xam ni nag ngeen baal ma de pour yow français moom mooy langue waa aljanna jéemoo sax jàng arab jéemoo sax jàng sa diine jéemoo cee xam dara topp sa àdduna rek dem nag ba retraité bëgg a rey nit ñi nag nekk ci jàkka yi moo tax ñooy xëccoo lu ne dem ba am ay jàkk yoo xam ne dañ leen di tëj ndax ña fa nekk matuñu lu ñu doon moom moo tax wa ma xayaatu dunia illa mataaul xurur yàlla nee na àdduna la dund la goo xam ne day wore waaye dafa bëri caaxaan yu fi nekk ak ay fo mu ne waaye nag wala daarul aaxira xayrun lillazina yattaquun yàlla mu ne afala taaqiluun mu ne alaxira kay ma wax la mu ne alaxira mo gën fouf ndax da fay jeex te alaxira du jeex ña dee won teud ba léegi yewu nañ est-ce xam nañ ci lan lañu nek wallahi xamuñu ko mais ñom xam nañ ñom ci lan lañu nek ña nga teud rek ba jugaguñu de tax sam papa buñ daan yé pour ñu julli fajar daf ju daan wax jóg leen ku dee di nga nelaw ba doyal jóg leen ku dee di nga teud ba doyal ku di nga nelaw ba doyal jugal jox yalla limu mom luqumaan doon yedd doomam di ko wax ni bu la ginaar ëpp fulla bu fajaree mu jug di sàbbal boromam kokkorikook sàbbal borom bi la subhanahu wa taala yeewaale la yow nga ne xamu tëdd ci kaw kawlaat bi rek di nelaw ndeysaan et pourtant li ci doy waar mooy bu la àdduna digoon benn mbir 3 heures du matin wala 4 heures du matin da ngay jug dem dabi ko dem jëli ko mais yàlla dig li gën a neex mooy àllaaxira te moom mooy sax nelaw boo defee lii ak lii ma dugal la ci kër goo xam ni moom mooy daaru salaam mooy ay jeex na dugal la ci kër goo xam ni dootoo xiif dootoo mar dootoo jaaxle amatul jaamu yàlla nga ne yàlla déedéet bàyyi ma topp bii rek jël sa àdduna jaay jënd àllaaxira moo tax yàlla mu ne afalaa taaxiluun ay waay nit ñi lu tax du ngeen am xel ba xam àdduna nan ngeen ci nekkee xam ni dangeen ngeen fiy jóge ni ngay jóge sa kër dem liggéeyi ci bureau ba wàcc ñibbi noonu nga mel ci àdduna dangaa liggéey si ci àdduna da ngay faatu da ngay wàcc da ngay ñibbi te boo demee da ngay rendre compte moo tax adduniyaa daarul li man laa daara la àdduna muy këru koo xam ni bu ko jàppee amul kër suñu benn mag réew daf doon wax ni ki bëgg àdduna di ko topp mi ngi mel ni ki tépp topp medd di ko lekk bëgg àdduna mu jaral la lu nekk lu nekk nga sa moo tax mu ne allaaxira moo gën fuuf ci ñi nga xam ne dañoo jëloon seen bopp jox borom bi subhaanahu wa taala ragal yàlla sellal ko doon ko jaamu mu ne waaye am leen xel da ngeen liggéey si da ngeen di ñibbi falaw annana iza mitna turikna la kaana al mawtu raxatan li kulli xay walakin iza mitna buisna wa nasalu baadahu an kulli shay waa ji nee na bu fekkoon ni boo faatoo day mel ni ba nga juddoogul mu ne kon dee day nekk noflaay mu ne waaye soo deewee dañ lay dekki lu nekk ñu laaj la ko waaw kon jar na nga topp àdduna bi nga xam ni boo ko toppee yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam àdduna tollul nenn ci yàlla mu ne bu tolloon ci yàlla comme laafu yoo mu kon yéefar du fi naanee guuxu ndox leen laafu yoo lan lay bëse dara du dara laafu yoo yàlla nag àdduna tollul noonu tollul yaa li muy sax àdduna tollul noonu ci moom parce que xam na ne day romb nee naa la jamono bi ngay toll to dégg jànq bi ak mère bi ak maam ak a jege bi ngay dégg jeune bi xale bu góor bi ak tonton ak papa ak ak ak maam ak a jege moo tax mu ne alaaxira moo gën ci ñi nga xam ne nag am nañu xel tey utiliser seen xel moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu benn xadis boo xam ne daf ñuy firil ba tey àdduna mu ne yuktaa bi ana amu ahli dunya fa yuxmasu fi naari xamsatan waxida suma yuqaalu lahu hal murra naiman qat فيقول لا يا ربي وعزتك ما رأيت نعيما قط yonent bi nee na yowmal xiyaam dañuy jël koo xam ni bi mu nekkee ci àdduna dafa aisé xam ngeen am na ñoo xam ni yàlla philosophie bi tax mu wàccee koor am na ñoo xam ni bu dul woon koor du ñu xam xiif am na ñoo xam ni bu dul woon weeru koor xamuñu xiif lu ñu soxla dañ koy lekk heure bu ñu xiifee dañuy lekk am nañ ko mais nag ci biir nit ñi am na koo xam ni bu añee du reer am na koo xam ne buy jàng yaayam moo koy jox paas des fois su amul paas dafay dox léeg-léeg mun naa toog ay fan du ndékki des fois pour mu am lu mu añee problème la borom bi subhanahu wa taala noonu la bindee àdduna dafa bind àdduna def ay rang sociale yu ute pour bëgg nit ñi gën a jàngante seen biir ki am ki koy wane mooy ki nga xam ne amul ki amul tamit ki koy wane mooy ki nga xam ne moom moo am bu dul woon ñàkk am du am valeur mais bu dul woon tamit am ñàkk du am kon loolu la yàlla di jàngale mu ne nag yowmal xiyaam dañuy indi koo xam ne lu nekk la amoon ci àdduna musul am benn coono mu ne mais dañ koy dugal safara dañ ko fay yëndu rek génne ko ne ko ndax mosu ngaa am bànneex ci àdduna mun a yàlla déedéet musuma am bànneex ci àdduna dafa yër dugagul de dañ kaa yëndul chaleur bi rek moo ko dugg mu génn ñu laaj ko ndax mus ngaa am bànneex ci àdduna mu ne déedéet yàlla musuma am bànneex ci àdduna mooy ñi nga xam ne dañoo toppoon àdduna yaakaar ni du jeex Aïcha ñu ngi lay ziar ñu toppoon àdduna yaakaar ne du jeex am na xale bu jigéen boo xam ne jàpp na ni du nekk meer ba mukk toll ci rek dangal sol lu la neex wax lu la neex defe nu la neex boo tàggoo jàngi jaar feneen jàpp ni àdduna daal moom fan yi ngay dund yor sa portable di jëflante xale bu góor bi neexit boobu ay je t'aime ay tu me yooyu nga xam ne daf la koy wax wax na ko sa ñaar téeméeri moroom nga jàpp ni loolu la sa yaay bi nekk ci kër gi sax gëmatoo ko am nga ñeneen yaay yoo xam ne ñu ngi lay dicté ñu ci portable bi am nga ñeneen ñuy wax ak yow jàng nga nasaraan dugg na la ba nga jàpp ni nekkatoo yow benn sénégalaise nekkatoo nit ku ñuul noonu lay dalee xale bu góor bi tam nit du fàtte cosaanam nit du fàtte li ko fal jàng am na solo langue am na solo mais li gën a am solo mooy man jullit laa boo xam ne lu ma gis ci lu baax dama koy jël dama koo soxla mais est-ce que nag dama cay nuur ba fàtte sama diine toll ci jànq rek dafa ne yow la jànqi léegi changé doxin changé waxin jànq nag ak a métti toll ci jànq nii dafa métti booy janq laa leen xale yu góor yi nekk ak seen rakk yi nekk ci biir kër yi ñu commencé nekk ay di màgg da ngay gis sax nga wax ñu tontu ah da ngay jànq-jànqlu parce que jàpp ne ni bu asamaan si dee wala daf koy téye moom xale bu góor bi tamit noonu lay demee xale bu góor bi nekk ci biir kër gi jàpp na ni fi mu nekk nii jeune la ah tëdd na géwanti na diggante relation góor ak jigéen commencé na yëg ay bànneex yoo xam ne yàlla moo ko rofoon ci nelaw ci yaramam mu doon nelaw commencé na ko dekkil mu jàpp ni mi ngi ci beneen monde moo tax des fois tubaab bi ñooy wax descends sur terrain wàccal ci suuf si fi nga nekk génn goo ko kon fais attention defal ndànk ëllëg yowmal xiyaam ñii réccu bi ñu nekkee fii ci àdduna mooy ñi nga xam ne dañoo jëloon àdduna mu won leen xar kanam bu leen ree te fekk na dafa denc ay musiba ci ginnaawam daf lay xool di la siiñ moom àdduna waaye lim lay gëmloo loolu nekkul mu ne noonu la ñuy indee ki nga xamni tam bi nekké nekkee ci àdduna sonnoon lol lu ne mu dajon ko fi ci ay metti ak ay cion wa yuktaa bi ab asi ahli dunya fa yuxmasu fil jannati xamsatan waahida fa yuqaalu lahu hal murra bika buksun xat xaala yaa rabbi laa wa izzatuk wa jalaal wa jalaaluk ma marra bii buksun xat ñu jël nak ko xamni bimu nekké ci aduna sonu lool amul won dara ken considéré wu ko xam nga aduna dañu toll fo xamni ñi am ñoy and da ngay dégg ñuy wax dërëm ak dërëm ñoo mën a ànd mukkeek mukke bo ñëwee di ñaan ci xalé bu jigen bi yaaji ji day xool sa colin lay ñëk xol yow xol bu goor bi xol ndax gaar nga oto ci buntu kër gi wala déet lijjanti sax sa salaire bu ko mëna a lijjanti ba xam ban portable nga yor moo tax xale yu yi di abbu portable di abbu costume di abbu oto wala dañ koy luyé légui dem nax la ah loolu nga gëm ñu naxé la ko batay ci aduna la rek comme yow lix nga gëm ñu gëm ni comme bëgg nañu sa doom te li ñuy am matul 100000 weer wu dee te bëgg nañoo rawale seen ngor ak seen diine te maire bi loolu la gëm ah ñu dem lu luye oto benn 15000 garaawul daf leen koy jaral seen portable xarit bu dee moo gën seen bas ñu rocc ci sans jeter ay puces benn laps de temps rek la àbb costume ñoo taxaw nga xool defe ni waaja la fekk na nax na la ki nga xam ni avant muy takk soxna lu na daj na ko ndeysaan ki nga xam ni pour mu lekk fu nekk la jaar ki nga xam ni dafa galère étudiants yi dañuy sonn ndeysaan ñi ngi jaale seen mbokk étudiant boobu fàllu seen li tax mu faatu sabab bi mooy laaj droit am ci la faatoo ndeysaan ci loo xam ne bi ñu ko xaymaa matul sax cent mille francs pour wax la àdduna fi ñu toll suñu ay njiit des fois dañuy nelaw xaw ma kañ la ñuy yeewu